asalaamaaleykum waa Ndakaaru asalaamaaleykum yéen askan wi asalaamaaleykum Ndakaaru asalaamaaleykum yéen askan wi wax ji nag ñoom tey du gudd ñu ngi nuyu leader yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw stade bi yëpp si Malick ñu ngi lay siyaare di président Ousmane Sonko maa ngi lay siyaar di la nuyu Abbas Sall maa ngi lay siyaar di la nuyu waaw dañu ne jigéen ñi nag am na benn kilifa bu doon wax ne ku bëgg a falu nañ leen jàppale kon yaakaar naa ne yéen jigéenu Ndakaaru nag yor ngeen seen maire il est là di Barthélémy Dias maire ak juróom-ñeent yi te ngeen sal ko moom lii mu nekk maire de la ville de Dakar Dakar moom ak yi loolu demee na côté na nag au niveau de Guédiawaye loolu la ñu xam moo tax ñun juróomi commune la ñu am trois communes yëpp ay jigéen ñoom ñoo ko jiite ñu commencé ko ci li nga xam moom mooy seen doyen ñu bëgg ngeen dàcc ko di Adjaratou Ndiémé Baar moo nekk nii nekk parti socialiste dëkk ci Khalifa Babacar Sall dëkk Yewwi Askan Wi keneen ki ci topp nag moom mooy Khadija Maye Coor Diouf waa Lyon dëgg ngeen tàccute ñoo nekk maire tàcc leen ko bu baax a baax a baax doomu Pastef ak ki nga xam ne nag mooy madame Aminata Kandé maire bu Sam Notaire nuyu tamit Khalifa Ababacar Thiam de delli si ñaari bi nga xam ne laay jàpp leen gaynde gaa ngi nii gaynde gaa ngi nii ndax Torgny Dias a ngi nii ndax Torgny Dias a ngi nii prochain maire de Dakar ñu ngi toog jàpp leen mu demee Dakar Ndiaye jógee nii te nag dañ ngeen dañ ngeen di Mahmoud Saleh wax Mahmoud Saleh nee na élection Macky léegi